dafa irresponsable ndax depuis xale moo ko exposé bàyyi ko ak oustaz boo xam ni pervers la nekk ci euh, kawam yàq ko ba tey ji li ko dal ni euh, dal ko waaye ki nga xam ni euh, moo di tam di aana am na lu ko bett trop ndax mosul jàpp ni ki yàq doomam wala nag kiy def doomam jëf ju ñaaw jooju dina nekk oustaz bi nga xam ne dafa yàgg am ci moom confiance ba bu problème amee sax mu daal di koy yónni ci doomam ndekete oustaz boobu mook doomam ñu ngi dund loo xam ni ba tey lii xew ni dal di ciy xew ñu jàll si njawar njawar nag moom dafa choqué bi mu gisee ni ni Soxna Marème jàng na euh, te yéen nag commencé na sax di intéressé wu ci moom parce que moom njawar li tax demuk buri gën koo métti mooy liggéeyam kon bu fekkee ni ki remplacé buri li buri munoon mun na ko a neex ba tax na kon moom euh, Soxna Marème amaana place bi mu yàgg di wër léegi tey mu am ko ñu jàll si Omar Diagne euh, moom nag dof la waaye nag gis nañ ni xelam mi ngi màcc te nag mi ngi analyser bu baax a baax ba tax na ëmb Anta moom moo ko njëkk a détecté même bu fekkee ni que Badlen ak Jaja d'accorduñu ak moom dem sax ba koy xas di ko yemale waaye waaye terewul li mu wax moom mooy dëgg euh, ndax nag comme olof Ndiaye li muy wax rek euh, dëgg euh, moo njëkk te nag moo mujj te biñ demee ba ci biir nga xam ni moom li Omar Diagne wax mooy dëgg ndax comme li ñuy wax rek ëmb kenn mënu koo euh, nëbb ndax doxuti gëléem la euh, te nag koo rek la jëm ñu jàll si Modou Diagne bi nga xam ni ñoo na attaqué soxna ndax dafa jàpp ni soxna moo ko boole ak ki nga xam ni moo di euh, Seydou ba seddu triandé ko xaalis bu baree bari waaye soxna moom gis nañ ni loolu yëpp yitteelatu ko moom instant yooyu gis na ni Seydou kon triand la te kon bu fekkee ni que def na loolu def na loolu Modou Diagne kon dina ko def ki nga xam ni moo di njawar ba tax na moom jamono ji lenn rek moo ko yitteel mooy njawar daal di torox daal di daanu waaye nag comme li ñuy wax wax olof njaay li wax yéene néeg la borom moom moo cay fanaan euh, moom euh, soxna fexe na ba euh, ki nga xam ne moo di buri génn kër njawar ndax xam na ni buri moo doon jàppale njawar waaye nag tey kiñ ko indil di Soxna Mariam nekk na koo xam ni yaakaar naa fi buri féete woon njawar yëpp mun na ko fa féete teg ci itam Seydou mi nga xam ni bëgg nañ mu yàqal njawar ki ñu njëkk a yàqal mooy Modou ndax lu ëpp quatre-vingts millions koo ko jëlal yaakaar naa kooku yàqal nga ko ñu jàll si ki nga xam ni moo Ibulaay moom nag ba tey bàyyiwul tey lépp di lebaatu toxu tari pari fu di yàq xaalisam ba tax na tey gannaaw bi mu lebee fu nekk tey ci ki nga xam ni moo di euh, Birane la ñëw yaakaar naa nag bu lebee ba jeexal ba amatut ko mu leb dina toog ndax magu jëm yaakaar naa ni war nga liggéey wala nga jombale sa bopp ñu lay sa moromu góor di liggéey di la jox yow nga koy euh, defee ay pay foot ñu jàll ci ki nga xam ni moo di Soda Mariam ak yaay joor ñoom nag kontaan nañ ndax gis nañ changement bi nga xam ni njawar tàmbale na ko am ci digganteem ak euh, Soda Mariam ndax mi ngi koy apprécier waaye itam xam na ni mi xam na ni ku jàng la dem na itam bay rëccu li nga xam ne doxalee na ko ak moom mu mel ni nag loolu victoire la waaye nag yaakaar naa kanam la jëm ndax yaay joor moom jugul ci di conseiller Soda Mareem ci muy def lu bégal xam ne moo di njawar te yaakaar naa comme li ñuy wax jigéen du rëbb sooy te góor it comme li ñuy wax rek xale la ku ko naxtaan rek am ko ñu jàll ci Karim Karim nag moom bi ko Anta ñëwee di wax ëmb bi da ko nangu euh, loolu nag Anta euh, mën na jàpp ni Karim da koo bëgg alors euh, a am nga xam ni moo di euh, Karim euh, dafay yéeg ci kawam rek pour jàll pour nag situation wam euh, mën a changé ñu jàll si Jaja Jaja nag moom gis nañ ni xol bu rafet bi ko yàlla jox à chaque fois day gën a feeñ ndax tey Omar Diagne mu ñëwee ci kër gi ba tey mi ngi koy toppatoo di ko rek di delloo si xelam ba gis nañ ni Omar correct na te it nag mën na toog ak nit ñi loolu nag neex na aas ba tax na nag di papaam ba tax na mu ñëw di ko apprécier waaye nag di ko rek dal di féliciter bu baax a baax li nga xam ne mi ngi koy def gars yi nag yaakaar naa li mu wax rek dëgg la euh, baax loo ko jëndee rek euh, baax euh, loo mënti gis aduna rek baax da koo gën ndax nag boo baaxee rek doo sonn képp ku ñëw da nga koy yéene jàmm képp koo gis nga yéene ko jàmm waaye rawatina koo xam ne yéen bokk deret ku jàmm rek nga ko war a yéene kon njajaa xol bi mu am yàlla moom moo koy fay te it nag mën nañ ni yàlla fay na ko ko ndax dara gënul neex sa papa gërëm la ki nga xam ni moo di anta nag nga xam ni dafa dëkkee woon ci kër gi di def lu ko neex ñu koy yedd mu bañ te gis nañ fi mu mujjee ba jajaa mi nga xam ni mosu koo